amoon naa ko fi yaay amul suuf. Mm. bismillahi rahmaani yi nga xam ne yéenay jaayanteeg sëñ Tuba di ko indil seen alal fii sous forme daayira wala ci gëneen mbootaay gu mu mën a doon man la Abdoul Akram Mbacke yi suñ boroom dogal sëriñ bi di ma càmbarloo liggéey bii taalibe yi di fi indi léeg-léeg nag dama ci gis yu xaw doy waar amoon na ci màggal gi répété waat na tey yéen a ngi gis enveloppe bii ma tiim daayira talaatay maam Cheikh Ibrahima Fall la tudd ndakaaru lañ jóge tey jii lañ fi ñëw le vingt cinq douzième mois deux mille vingt et ku ñuy wax xaadim Thiam moo ko jiite feuille blanche yii la dagg def ci deux deux cent mille rek la ñu annoncé moom lañ moom lañ bind ca lettre bañ leen tontu yóbbu kon ku bokk ci daayira boobu na nga xam ne xaarim caam feuille blanche yii la def ci lettre bi waaw maa ngi nii nag toog nag ak Serigne Cheikh Mbacke Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma doomu Serigne Mountakha mooy sama seere ma dajjee bi mi ngi